ayca ku ci nekk wax euh, jërë ngeen jëf euh, jërë ngeen jëf ku ci nekk wax na li nga xam ni moom mooy sa xalaat xam naa ni namoon ngeen ma waaye maa leen raw pire pire pire et puis yokku tere la dolli ñeex jël yëf yi dolli ci ay yeneen ak yeneen yoo xam ni tarkal la euh, day gën a neex ah toq sa bann laa koy def boo xam ni sañ ba ñun ñëpp dañ koy seetandoo te kenn du ko gis nañu dem ma xool yi premier élément bi nga xam ni moom laa leen may ci Dakar ne dort plus mais Dakar na dort plus dafa nar a ala daw me Dakar ne dort dafa nar a bari li nga xam ni moom mooy ay ruq ak xut ay ruqaat yooyu ci lu baax moom laa koy def du am fenn foo xam ni day sedd féppay tàng jër jër jër jër jër bu ngeen paree ñu dem xooli suñu premier élément suñu yaay la ñu xooli ko te ñëwaat ci Dakar ne dort plus xale yi tëggatuñu mag ñi woyatuñu ambiance amatul daara xewatul ba tax ñu war a jëli ay élément mais ñun bëri ay pexe parce que corona sonal nañu ñu ngi takk suñuy masque ñu ngi raxas suñuy loxo ak ay gel ah ñu ngi garder lee distances ñu ngi respecter yëpp mais corona fatt nañu ambiance amatul xaj nañu suñuy activité ak lépp ba tax na sama ma yaay yi damay fekk ci seeni kër ak sama morom yi pourquoi pas di leen laaj seen xalaat ci réew mi seen xalaat ci activité réew mi ak seen xalaat ci culture réew mi yaay mère Ndiaby moom laay njëkk seet yi élément boobu nañ ko xool ti ñëwaat léegi ci plateau Dakar ne dort plus bu ngeen noppee rek maa woo nañ dem ayca